الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال لتتبئن سنن من كان قبلكم سبرا سبرا وزراعا زراعا حتى لو دخلوا حجر دب تبعتموهم قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن رواه البخاري mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi sunu xutba mooy xatta law daxalu hujra dabbin tabaatumuhum yonent bi alayhi salaatu wassalaam def ñu wax ci benn xadis boo xam ne saxaaba bu màgg bi tudd abi said moo ko nettali nee na yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam nee la tattabi'unna sunana man kaana qablakum da ngeen topp yoonu gaa ya fi jiitu woon sibram bi sibran sibr mooy paa mooy nii mooy nat di ngeen topp yoonu gaa yooyu sibran bi sibran nat ak nat wa ziraam bi zira meet xasab ak xasab hatta law daxalu hujura dabbin tabaatumuhum bu ñooñu duggoon ci ay paxi mbëtt sax yéen jullit ñi di ngeen leen toppandoo ba dugg ci paxi mbëtt yooyu ndax toppandoo gi ngeen leen di toppandoo keroog ba yonent bi doon wax wax ji saxaaba yi dañoo tiit dañoo jommi ndax ñoom mënuñu woon gëm ne àdduna dina yàgg ba jullit yi di toppandoo yahud yi ak nasaraan yi di leen roy tànk ak tànk jéego ak jéego mbagg ak mbagg ba yahudi ak nasaraan yi bu ñu duggoon ci ay paxi mbët jullit ñi dugg fa di leen toppandoo loolu sahaaba yi mënuñu ko woon moo tax ñu ne ko fa man yonent bi ñan ndax tiit gu ñoom sahabatul mu ne hadis bi bu ñu demee ci buxaar yi danañ ko fa fekk téere buxaar yi xadis bi dafa am ay maanil alfaz léeg-léeg bu ñuy jàngale arab jàngale alquran wala waxu yonent bi dana ci am ay baat yoo xam ne borom xam-xam ñooy ñu firil baat yooyu yonent bi li muy wax lu muy tekki ci hadis bi def ci am ay baat yoo xam ne borom xam-xam yi ñoo ñu tekkil lan la yonent bi bëgg a wax la tattabi'unna sunana baatu sunana borom xam-xam yi nee nañ li muy tekki mooy at tariq mooy yoon dangeen ngeen topp yoonu ñu ne sibran wa zira tumassilu al iqtidaau bihim su ñëwee ci hadis bi ba tey danañ fekk am na fa yeneen baat yu laaj borom xam-xam yi firil ni ko ndax ñu dégg ko mooy fi yonent bi ne jéego ak jéego tànk ak tànk natt ak natt foofu ñu ne yonent bi li mu wax mooy di ngeen leen roy di ngeen leen roy di ngeen leen toppandoo di ngeen topp yoonu gaa yi nga xam ne ñoo leen fi jiitu woon ñooñ ñooy ñan mooy yahudi ak nasaraan yi di ngeen leen topp yéen jullit ñi di leen toppandoo di leen toppandoo ba ñooñu bu ñu duggoon ci ay paxi mbëtt ngeen dugg fa toppandoo leen loolu moom fi mu nekk nii kenn waxatu ko jullit ñépp ku ci xëyul ne sama doom ji comme ab yahud wala nasaraan kenn du kontaan ñun ñëpp ñoo ànd seede ne tey ci kaw suuf xeet wi umma bii di umma al islam desalatuñu dara ci toppandoo yahudi ak nasaraan yi ci ban weer lañ nekk weeru décembre lu ci xew ci 24 lañ bàyyeekoo barki démb ñoo ngi jublu 31 décembre suba lan mooy xew ñan ñooy feetu ñan ñooy taali pétard ñan ñooy fecc ñan ñooy naan sàngara si soirée yi ñan ñoo fay fees ñan ñoo koy tëgg ñan la jullit yi ci feet boo xam ne bokkuñu ci du seen feet du seen diine te li gën a ruslu doy waar mooy dañ naan fête de l'année la soo ne ab jullit yow lu tax mu ne la fête la ne la waaw léegi kooku noonu ñu ngi koy laaj année bi année ñan la est-ce que ñun ñi manifesté wu ci année yii ak seet yii lu tax su gam su gàmmu jotee su tamxarit jotee lu tax du ñu manifesté wu noonu lu tax duñu ñu tal yi du ñu garab yi lu tax du takk ay jeux de lumière ci bisu gàmmu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yéen ñëpp jàng ngeen na yonent bi moo gën ci mbindeef yi yonent bi Isaa ku gën yonent bi moo gën Isaa yonent bi moo gën Ibrahim cent vingt quatre yonent la yàlla yónni cent vingt quatre mille yi mu wax ñaar fukk ak juróom ci alquran vingt cinq juróomi mu jël ci juróom tuddee leen ulul azmi min ar-rusul ñoo ci gën a màgg juróom ñooñu kenn mooy seen kilifa mooy Seydina Muhammad yonent bi nee na bu Isaa dekki woon bu Muusaa dekki woon kaw suuf si du mën a yaatu ci moom dul mu nekk sama ginnaaw lu Moussa dekkee woon laa wax kaw suuf du mun a yaatu ci moom lu dul mu nekk ci sama ginnaaw Isa day dekkiwaat ñëw ci kaw suuf ci ginnaaw imaamul mahdi lay lay lay nekk imaamul mahdi lan la ci yonent bi sëtam la parce que Xasan moo koy ci sëti Xasan lay bàyyeekoo loolu xutba woon nañ ci fii mbokki jullit yi kon nanu xam ne ab jullit du nekk toppandookat du nekk roy dàq tey ci sunuy col xool leen génn leen génn leen buñ jullee jumaa ba pare ku nekk booy ñibbi sa kër xoolal xale yu góor yi ngay dajeel seeni colka ndax colu jullit la wala colu yahud la wala nasaraan xool leen xale yu jigéen yi colu jullit la wala colu nasaraan xool leen bopp yi xool leen yaram yi ci biti xool leen dëkk bi kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne boroom xam-xam ba ñuy firil li sahaaba yi jommi ne faman waaw ñonent ñooñu ñan la mu ne istifham la yéen ñu jàng arab istifham inkaari wa maanaahu faman hum gayru ulaika ant bi la sahaaba yi tiitee ne ñan mu ne ñan ñoo fii nit ñu dul ñooñu ah ñan ñoo fi ay nit ñu dul ñooñu ñooñu la ñooñu lañ fi fekk ñoo fi jiitu lislaam yonent bi yàlla yónni ko pour mu wuuteeg ñooñu mu ne ahkaamun fiqhiya wa duruus mustafaad min al hadis hadis bi dafa am ay àtte yu ci nekk ak ay njàngalin ak ay leçon yoo xam ne ñun jullit dañ koo war a jëriñu ahkaamun fiqhiya ay àtte fiq wa durusun mustafad min al hadis hadis bi dafa ëmb ay atte ay njàngalin yoo xam ne ab jullit daf ko war a jël dund ko bi ci njëkk ixbaaru nabi sallallahu alayhi wa bi annahu sa yakunu fi ummatihi mudaaha alyahud wa nasara wa hum ahlul kitab yonente alai dafa toog septième siècle bi ko yàlla mu wax loo xam ne tey ñun ñëpp teg nañ ci bët lool day wane ne dëgg dëgg ab yonent la yàllaa ko yónni maa ngi nii di gis sama xeet ñuy toppandoo yahud ak nasaraan loolu mu am tey ñun ñëpp ñu koy gis bala ngay kontaan ñu ne cee sama doom ji tubaab la waaw bala kontaan dem tukki réewum tubaab bala ngay teg kontaan check down sa tubéy bi wala nga paccal ba dee jigéen ñu ne cey kii xool leen ko ñëpp bëgg ci yow waaw bala ngay kontaan tey ci jullit mu bàyyi diineem am complexe roy yahud loolu loolu tegtal la ci yonent bi dëgg-dëgg yàlla ko yónni septième siècle mu wax ñu nekk tey vingtième siècle mbir yi ñu koy leer ñu koy liir gis ko teg ci sunu bët nee na sunu yonent daan ñuy wax min alaama nubuwatihi sallallahu alayhi wa sallam xàmmekaay luy wane ne yonent la alwuqu ma tanabba bihi alayhi salaam la mu waxoon am ñu ciy teg bët loolu dëgg dëgg day wane yonent bi dëgg la yonent yàllaa ko yónni ñaareel njàngal dalail ala nahyi nabi sallallahu alayhi wa sallam an tashabbuhi ayyuha al bil yahud wan nasara tere gi yonent bi tere ñu toppandoo yahudi ak nasaraan loolu dafa leer nañ jàng histoire ñu tàmbali mbir yi may lim yëpp yonent bi dana wuute leen koo ak nasaraan yi fekk na ñuy feetu bisub tam xarit mu laaj waaw lu xew bis bii ba ngeen di woor ñu ne ko yàlla labaloon na rëccal Muusa ñun yi ñu kontaan ci bay woor di sant yàlla benn fan mu ne man dinaa woor ñaari fan pour wuuteeg ñoom ndax maa leen gën a yay ci Muusa foofu lan la wuuteeg ñoom dafa woor ñaari fan ci diggante sikkim ak mustaas dafa fekk yahudi bàyyi yëpp dañuy bàyyi naanu yi bàyyi sikkim yi yëpp di wàcc mu fekk chrétiens yi di wat sikkim yi di bàyyi mustaas yi mu ne yéen jullit ñi wuute leen ak ñoom wàññi leen lii ngeen bàyyi lii xoolal tey ku ko def jullit ngay dajal mu ne la terroriste wala mu ne la Ben Laden ñeen leen doon wax Khomeini ndeysaan loolu lañ lay tuddee lu yonent bi joxe ndigal moo ko wax mi ngi ni ci hadis yi bu kenn wëri fenn benn waaye bu doon weddi loolu ma ne ko xoolal photo kilifa diine yi ci senegal ñëpp seen sikkim yaa ngi buubu ndax ndigal loolu lañ dégg waaye ma asaf ñooñu seen sikkim yi di buubu seen taalibe yi ñooy wat tey te dara du xew te duñ fàtt dañuy fàtte kilifa yooyu dañoo dégg ndigal yonent bi jëfe ko sallallahu alayhi wa beneen ci nodd yonent ba ñoo fekk yahudi yor béjjën di of nasaraan yor cloche mu ñëw indi nodd bu fekk leen ñuy feetu samedi ak mu indi àjjuma mu fekk leen jigéen bu gisee baax du ñu lekkandoog ñoom dañ koy génne teg ko fële mu ne yéen isnau kullu shay'in illa al def leen lépp ba mu des sëy mu fekk leen ñuy jublu masjidul aqsa mu tourné jublu masjidul haram fekk leen ñuy jublu jérusalem moom mu tourné jublu makka al yëpp yonent ba wuteeg ñoom ñoom sax dañoo dem ba caag ñu ne waaw waa ji lu ko dal ñun luñ def rek mu def leneen luñ def mu def leneen ba ci jullee daal ak simi daal yonent lépp la wuuteek ñoom kon yonent bu ñëwaatoon tey mu fekk fii 31 décembre 1er vingt 24 décembre ay jullit rey ginaar naan damay feetoog fela fedde nangam ak nangam ku ci rey ginaar da nga kaapu doole rek te ëllëg yow mal xiyaam di nga la yàlla ginaar gi lu taxoon waaw mbokk jullit yi kon day wane ñaareel njàngin bi tere gi yonent bi tere ñu wuuteeg nas yahud ak nasaara nañu jàpp ci sunu téere nañu jàpp ci sunu diine ñetteel ci njàngalin yi zammul muqallidin lil yahud wa nasaara wal ajam yoon dafa ŋàññu keroog ba mu gisee sahaaba bi yor feuille bible di ko liir allahu akbar fooyu bible la yor bible waxu yàlla la waaye wàccul woon ci sayyiduna muhammad ci Moussa la wàcc yonent bi gis sahaaba bu yor bible di liir mu ne bilaal wooteel ñu daje ci jàkka ji bu dee jamono bu julli jot suñuy won nit ñi nodd lañ leen di woowee bu dee jamono boo xam ne du julli dañ naan asalaatu jaamia nañ daje ci sa jàkka ja rek gaa yëpp daal di ñëw yonent bi soxla nit ñi julli mbooloo ñëpp ñëw keroog yonent bi xutba ba di xonq mu ne àdduna mu ngi tukki xanaa xamuloon ne musaa bu dekki woon tey sama ginnaaw lay nekk mooy sama taalibe lay nekk naka ngeen fii bàyyi alxuraan di lire bible saxaaba bi xam ne moom la ñuy waxal munoon na ko ne yow waaye déedéet kooku du Muhammad waaw moom noonu la daan corriger maa baalu qawmin lan moo dal nit ña li tax yenn saa yi nga dégg ñu ne ku lekk yàpp gëléem sa njàpp yàqu na ña doon lekk yàpp gëléem yi dafa am ci ku njàppam yàqu yonent bi ne yéen ñi lekkoon yàpp gëléem bi léegi dem leen ngeen jàppiwaat moo tax ci yenn ngiir yi mazhabu abu xanifa boo lekkee yàpp gëléem dañ naan sa njàpp yàqu na dafa nga lekkiwaat maalik ne déedéet yàpp gëléem du yàq njàpp waaye ña lekkoon yàpp ba dafa am ñu seen yàpp yàqu yonent bëggul wax diw dama nga jàppiwaat kon day doy waar ci biir mbooloo mi mu ne yéen ñi lekkoon yàpp gëléem bi dem leen ngeen jàppiwaat noonu la sallallahu alayhi wa sallam daan jàngalee mbokki jullit yi yal nañu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal nañu yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko alhamdulillahi waxda wala nacbudu gayra muxlisina lahu ddin walaw kariha alkafirun ibad allah annuqtatu salis zammul المقلدين لليهود والنصارى والأعجم لأن ذلك يكون إلا عن الشعور بالضعف وعدم الثقة بما هي عليه أمته من العلم والثقة والعادات ñetteelu tomb bi mooy yonent dafa ŋàññ dafa yedd ñiy toppandoo yahud yi ak nasaraan yi jël seeni aada bàyyi seen diine ndax loolu dafay wane ne dëgg dëgg dëgg yow dafa am lu la manqué li la manqué foog nga mottali ko nga bàyyi sa diine dem feneen mooy yow danga am complexe. dangay gis ba ci nuyoo ab jullit loolu rus a wax asalaamualeykum wa rahmatullah que dafa takk karawaat dafa sol costume mu rus a wa rahmatullah mu rus ko wax c'est parce que dafa sol colu tubaab. mu rusa wax asalaamualeykum ak yeneen ak yeneen yu nga xam ne yéen ñëpp bokk ngeen ci teg bët ndax loolu day wane ne kii dafa am complexe dafay suufeel boppam day wane ne jullit gi mu nekk yéegu ko dëgg dëgg dëgg ndeysaan chaque jour ma wax ko suñu benn élève jardin d'enfant jour 24 le 25 mu xëy di jàngis parce que dañ leen ne du feet ñëw leen ngeen jàngis xale bi dem seen kër ñu sang ko ba pare defal ko saakam sàkk de ndeysaan mu génn seen waa kër di ko tooñ papa ma ngi ci kaw immeuble bi ci kaw balcon bi di ko xool yeneen xale yaa ngi ci wetu papa ji ñu koy tàccu naan ko amu leen feet amuleen leen feet amu mu ne leen ñun jullit lañu ñun jullit lañu papa ji neen na tuuti ma dee dama toog su ma tàgg toogul woon damay wadd ci kaw balcon bi ne ma benn kurpeñ la ma dóor ci sama dënn bi ñun jullit lañu loolu xale bi waxoon ñun ñëpp ko war a wax ñun jullit lañu sa doom ne la feet bi nga ne ko déedéet du feet ñun suñu feet mooy muharram tam xarit passé na jamono jooju doo gis kenn yëngu walal jamono ji pétard yi kado yi gën a garaaw mooy per Noël jël ay tàngal yu ñu def kaani ak yu am suukar dajale ay nit ay xale di leen jox bind ci benn bi isa zési bind ci benn bi muhammad muhammad moo saf kaani bi mooy jinjeer bi xale bu ñu ko jox mu ne ma bëgguma muhammad bëgguma muhammad leen ma zési bi ñu ne la per Noël day jóge asamaan indil la kado suñu benn xarit ndeysaan ñaari doom yu nekk jardin France xëy suba jàngi madame bi ne leen démb de gis ngeen per Noël ci asamaan si la wàcc di joxe kado di wax loolu xale yi ba ci xale bu jigéen bu ndaw bi 3 ans 4 ne ko démb gis nga Père Noël mu ne ko déedéet mu ne ko gisoo Père Noël asamaan di waaj mu ne ko madame Père Noël dëkkul asamaan de asamaan ki fa dëkk mu ngi tudd Allah asamaan ki fa nekk tuddul Père mu ngi tudd Allah waaye ñun jullit yi ndey ndeysaan ñun la suñu pas-pas dee ñun ñoo am gàcce ñun ñoo rus nekk ay jullit ñun ñooy toppandoo mboolem tey su ngeen duggee dëkk bi ak suba ak ginnaaw suba saalu fawukaay yëpp day fees góor ak jigéen njaaloo sàngara musique ko wax mu ne damay feetu waaye sunu borom moom subhanahu wa taala li mu wax rek moo am wa ma antum bi mujizina fi l wala fi sama amul kenn ci yéen kuy rëcc yéen ñëpp di ngeen taxaw sama kanam kon nañ leen bàyyi xelloo juróomeelu tomb ittiba sallallahu alayhi wa sallam sunan as-sabiqin min al-umam al-muharrifa wa ahli diyanat ad-dalla la yani anna jami' al-umma sataf'alu hadha at-taqlid wa tashabbuh bal wa qad warada an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu qala la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala al-haqq hatta taqumu as-sa'ah lépp lu ñuy gis nag ci gaa yi di toppandoo di roy dàq di tuuteel seen bopp am na ci xeet wi ñoo xam ne ñoom bokkuñ ci nag am na ci xeet wi ñoo xam ne wallahi bokkuñ ci ñoom ña nga jàpp ca la Seyduna Muhammad jàppoon ñoom ña nga jàpp ca seen diine ñoom ñi ngi jàpp ci seen pas-pas duñ ko def mukk ndax loolu la yonent bi wax nee na ñëpp duñ ko bokk def waaye am na ci nag benn mbooloo moo xam ne foog ngi def ko am na ci ñoo xam ne lu ñuy tuuti tuuti tuuti ay benn ñaar ñett seen kër seen doom seen njaboot bu góor ak jigéen doo leen gis ci ay caaxaan ndax ñoom nee nañ ay jullit lañ mbokk yi ndax yéen ay jullit ngeen ñu julli si jumaa tey ndax ay jullit ngeen lan moo tax ngeen julli si jumaa du yàlla kon nag na ngeen julli ba pare suba ngeen dem 31 décembre <laughs> loolu muy tekki mooy li yàlla ne udxulu fi silmi kaafa dugg leen ci diina ji lépp kon loo ngeen def ŋarale ab jullit du ŋarale jullit imma shakiran wa imma kafuran dangay ngay weex tal maa nga ñuul kook mais ñuulu ma weexuma mu zabzabina bayna zalik di def defi laa haula bokk ma fii wala haula bokk ma fii yonent bi nee na ñooñu ñooy munaafiqi inna al munaafiqina fi darakali asfali min annar yàlla nee na ñooñ ñooy naafiq yi te ñooñu kal bu mujj ci safara bi laa leen di dugal kal bu mujj safara ay degré la yàlla nee na ñooñu ci degré bu mujj bi laa leen dugal yàlla buñ ci yàlla boole yal leen yàlla wan dëgg mu wërsëgal ñu topp yal leen yàlla wan neen mu wërsëgal ñu sori ko allahumma arina alxaqa xaqan warzuqna ittibaa wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaaba allahuma yaa musabitul qulub sabit qulubana ala taatik allahuma yaa haadi ihdina siraat almustaqim siraat alladina anamta alayhim min annabiyina wa siddiqina wa suhdaa wa salihin gayri almaghdubi alayhim wala dalin mbokk yi bu ñu paree julli am na sunu benn mbokk dëkkandoo boo xam ne mu ngi julli si fii ak jumaa ji ak ñun dafa tollu ci xat-xat jamono nekk ci ay problème mu luwaas mu ñëwoon wax ma ko ne ko nañ ko nettali ci jumaa ji nañ ko wax mbokk yi ku ko mën a jàppale bu ñu jullee ba pare incha allah ci balaa ñu koy génne di ko toroxal ak njabootam ku ko mën a jàppale incha allah bu ñu paree nga dugg si ci jumaa ji li la yàlla dénk nga jox ñu ko ñu jox ko ko incha allah mu ngi fii ci jumaa ji julli si ndoo ak ñun incha allah ku ñëw rek mun nga ko indi fii ci ñun bu soobee sunu borom yal nañu yàlla taxawu taxaw leen qumu ila salaatikum yarhamukumullah bismillah